jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu m TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. mbokk yi si four 5M TV Sénégal dal leen ak uh, jàmm jamono ji Sénégal yu bëree bëri. daan nañuy yeewu ràññee xàmmee lool jëm ci jamono ji réew mi di Sénégal na muy daal di doxee tax rek jamono ji talun lenn lu dul mbirum Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xamee ne ñii di waa Seneweb daan nañuy def ab post ci làmb ji nga xam ne tey jii nag mooy am ci diggante Lac de ak ka nga xam ne moo di Siteu di laaj ba xam ñi nga xam ne ñoo di internet yi ñaari mbër yooyu nag lañ ci faral waaye nag ñu ëpp ci ñuy commentaire nag lañuy wax rek moo di Ousmane Sonko. Ousmane Sonko la ñuy topp Ousmane Sonko moom la ñu faral jamono ji 18 heures rek la ñuy xaar Ousmane Sonko daal di wax loolu nag di tekki ne jamono ji Sénégalais yi nag seen bëgg Ousmane Sonko nag dafay daal di gën di yokku tax rek saa bu nekk rek ñuy passé lu bëree bëri di bàyyi lu bëree bëri ndax ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko.